jërë jëf mbokk ñu ngi leen di nuyu del rafetlu seen TV bi ci ñu politique ak congrès gi nga ne parti socialiste doon nañu ko ci talaata ji ngir daal a bokk jëm ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom kàngami ci seen bopp itam kon président Macky Sall la candidat présidentiel yu 2019 ci bi ñu rek moom président Macky Sall mooy mennum candidat gi nga xam ne bés bu ñu ko falaatee ci atum 2019 dina gën a yóbbu réew mi fi sori ci wàllum gëneel ginnaaw itam bi nga xamee ne moo tax ñuy sàkku ci askanu Sénégal ngir ñu mën a fexe booloo ba fal président Macky Sall ci présidentielle yu 2019 rawatina premier tour ba ndaje bi mu ngi doon am ci teewaayu alaaji Adama Mbodj ak Ousmane Diallo. Ousmane Tanor Dieng ak ñi mu àndal léegi leeral nañu seen ànd ak président de la République. investir nañ ko tey jii ci altine ji ngir mu doon seen candidat ci élection présidentielle yu atum 2019 yi di ñëw. lépp lu ñu def ñu defandoo ko ensemble bu yàlla defee nag ñu def mandat boo xam ne jàpp nañ ne mandat bu baax la bu yegsee logicul pour ñun parti socialiste ñuy am beneen candidat kutul ki nga xam ne moom la ñu àndaloon loolu day niru day mel ni ñun bokk nañ ci waaye affaire bi baaxul xam nga loolu du yëfu gor. moo tax ñu jàpp ne li gën mooy ñu ànd pour relever ay défis sénégalais fi ñuy xaar ñu jéem a fexe pour que ñu ànd ak président Macky ñi nga xamante ni ay responsable lañ nekk ci parti socialiste rafetlu nañ dogal bile ndaxte rek ci seen gis-gis njiitum réew mi mooy candidat bi gën a taxaw. ci noonu leen nag joxe nañ dig daje ngir rekk tabaat kii di président Macky Sall ci tour bu njëkk bi ci ngoonu ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum février bii di ñëw. bu ñu fa jógee assemblée nationale la ñu jëm wax kon ci mbiru xeex gi fa amoon ni ki altine ji diggante député bii di Serigne Bara Dolly ak Modou mbay li nu mel nag nekk lu leen di wormal ci jamono joo xam ne la leen yóbbu ca pencum ndawum réew mi moo di teewal faaskan wi rawatina jafe-jafe ya ñu leen di yéegee ngir ñu kaasal leen ko fa waaye bu fekkente ne ñoom dañoo bëgg a dem bay mujjee ci xeex seenug diggantek sàndante kàddu yu ñaaw nekkul luy wormal Sénégal te gàcce gu rëy la ñu dellu si ci coow loolee doxoon diggante ñaari député yi ak Abdoulaye Timéra ñii di député yi soppi nañu pencum ndawu réew mi ab mu nekk nekkin bi nga xamante ne bi ñaawlu nañ ko fa nga xamante ne bi moo di assemblée nationale gannaaw ñaari député yi di Bara Dolly ak Modou Mbaye daal di lëmbee fa nga xamante ne bi moom moo di pencum ndaw réew ma mel ni sabar bu tas ñi ki démb gannaaw ba ñu doon wootee lii di budget wu ministère bi gàlloo wàllu njàng mu kawe mi ci ay waxtu yu bëri pencum ndaw réew mi ni ki démb ay peñ ak lépp lu nga xamante ne bii xalaat nga ko ci wàllu xeexoo lañu nemmeeku ci diggante ñi nga xamante ne ñoo fare ci nguur gi ak ñi nekk ci kujje politique bi dal di soppi assemblée nationale def ko ab arène bi nga xamante ne bii warul te assemblée nationale dafa war a nekk diwaan bi nga xamante ni bii lépp lu ñuy waxtaanee dafa war a aju ci soxla askan wi rawatina li nga xamante ni moom moo di seen i nekkin ak ni réew mi war a jëm te loolu yëpp waxtaan la laaj waaye mënuñu. nangu ne assemblée nationale ñu soppi ko def ko lii di arène nationale mu nekk li nga xamante ne bi nag ñaawlu nañ ko bu baax a baax rawatina li nga xamante ne bi moom moo jur ab xeex ab député dafa war a nekkal askan wi bañ a jaawatle réew mi ak parti te bu ko defee tamit mbébétam yépp nekk ci li nga xamante ne bi moom mooy jëmal réew mi kanam ak ñu ko fa tax a toog ndax ki nga xamante ne bi moom moo toogal askan wi dafa war a ànd ak yar ak teggin boole si suufe boppam waaye ni ki altine lu ñu gis ci assamble bi rafetul benn yoon ci Sénégal te day gàkkal turu Sénégal fépp ci àddina te Sénégal nekk na ab réew bi nga xamante ne bii ràññee nañ ko ci li nga xamante ne bii moom moo di démocratie bu sax dàkk bi nga xamante ne bii ñoo koy dàkkantalee réew mi ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo sookee lii di xeex boobu nañ xam ne ab député dafa war a nekk ki nga xamante ne bii dafa am ay yéene yi nga xamante ne bii day tax ba réew mi a taxaw ba réew mi mën a naat waaye warul nekk ab boxeur mbete Mike Tyson lii de ruslu na ba tey bu ñu desee ci mbir moomee muy ñaari député doon xeex ci assemblée nationale ci altine ji daanaka ñu bari ci askan wi indi nañ ci seen xalaat ndax pencum ndawum réew mi nekkul kon député yi di fa dem ngir xeex bu fekkente ne ñoom ci seen bopp wàllum xeex moo leen dese te ñoo dem ci bi la moo di kon assemblée nationale wor ma ba fa nekk xeex war na faa mën a ñàkk ñenn ci askan wi indi nañ ci seen xalaat dellu itam di sàkku ci député yi ngir ñu mën a xoolaat responsabilité bi nga xam ne moom la ñu yore jamono ji reportage ci xàlli dakar yi El Diallo. ci biñi amal votu projet de budget bu ministère bu enseignement supérieur démb ci altine ji ci assemblée nationale parlementaire yi dañu fa j'apante ay jàppante yu metti loolu ne nak liko ko moy mooy ñàkk ci temps bi nga xamanteni joxon nañ ko député yu opposition bi ñi nga xamanteni ni ñoo di askan bi ak yenn député yu bokk ci parti au pouvoir bi ñaawlu ko bu baaxa baax. cela n'honore pas notre démocratie amul benn côté bo xamantene lolu dina jox geud wala dina jox succès wala sac suñu suñu askan. xanaa ñaawul ko rek te xamni ni erreur la xëy dinañ ko rectifier way lolu mom taxul assemblée nationale a jóg. suñu sukkandikoo ci ñom nak député yi war nañ soppi doxalin taxawu askan bi ci numu waré ci fi nga xamanteni modi hémicycle bi dama la dama wala war nangul sa xalat yow nga nangul ma sama xalat bu ko defee.

moo fa teewal peuple bi. parlementaires yi woo nañ leen ñu jël seeni responsabilité ndaxte ci gis-gisu askan bi mbir yi ni mel rafetul benn yoon ci démocratie réew mi. ba tey ci wàllum politique ak mbiri Karim Meïssa Wade dina dellu si waat ci lu yàggatul fii ci réewum Sénégal loolee mooy kàddu yi bàyyeekoo kon ci coordination bi ëmb libéraux yi nekk ci diaspora bi ca ba ñu jàppee ne Karim sa Wade xel mënta nangoo benn yoon muy ñàkk tànkam fii ci Sénégal rawatina sax mu bokk ci présidentielle yu 2010 19 ñoom liñ ci yokk nag ñoom libéraux yi diaspora bi moo di Karim Meïssa Wade du joxe dërëm ci li nga xam ne moom la ñu koy laaj ndax dara du ci dëgg leeral yeeg leeral yeeg Jibril Dem ak Babacar Mbu. Karim dina dellu si fii ci Sénégal lii ñu ko xam ne mooy section libérale ba nekkee ca diaspora bi ñoom ñi le sax ñu ngi xamle ni nguuru Macky dina jàmmaarloo Karim ñu bëgg ko ñu dootul ñëw am na lu ci laxasu dàq na léegi dana ñëw gi kat ban bis la bis bi nag dafa dafa li nga ñun parti première force politique parti parti politique PDS légitimité capacité organisationnelle capacité de résistance un ancien chef d'État pour toog ñaari at bi nekk opposition wàcc ci réew ñaari million de sénégalais teeru la fu am ci àdduna. amul lu jaadu la ñetteel ba nag ñun suñu parti dañu am discipline président Abdoulaye Wade des juristes yàq ñu tuuti ñun nag léeg-léeg ñu waaye dafa jël Omar Sarr muy suñu coordinateur mat ko taxawee ko mu dénk ko ginnaawam. ñu respecté sénégalais yi information bu tey ni Karim Wade ah gañaa boobu bu doon fusi course ñu ne gañaa bis bi Oumar ak comité directeur dañuy communiquer officiellement ban bis ban ak ci naka lañ koy teeroo waaye nag walu dëgg la dana mokk du kenn dégg kàndal ci naam daanoon nañ ko téeméer ak fanweer ak benn milliard yi nga xam ni moom la war a fay senegaal libéraux yi li xamle nañu ni Karim du fay dara ndax jëlul alalu senegaal Karim du ko fay dara ma wax leen ko ñun ñëpp ngeen ko dégg tey ndax yoree ko dara bor kenn mu topp mu tëggoo bàyyi moom la laaj suñu xaalis bi def ay commission rogatoire bi mu yàq nañu ko delloo ci gré na tey Karim du jox du état du Sénégal benn dërëm ndax yore ñu toll ci fukki dëkk ak benn yu jóge ci diaspora bi ak Afrique ñoom ñi ñile ñoo teewee woon ndaje mile lii lu ko tax a jóg rekk mooy ñu jàmmaarloog njiitu réew yi Macky Sall waaye tamit taxawal lii di ay ngir fexe ba Karim Wade senegal bokk na ci réew yi ëpp jën ci continent bu Afrique waaye jamono ji jafe-jafe am na ngir jaaykat yi rawatina ña nekk ca marché Castor ñu mën a gis jën la ko waral moo di kon dafa réer may rawatina jamonoy sedd gi ñu nekkee ci jamono joo xam ne nag nee nañu la leen gën a yokku jafe-jafe itam moo di kon na grande surface yi nga xam ne dañoo ñëw dëju fii ci biir réew mi te daanaka ñoom li ñu doon jaay yépp ñooñee ñu ngi koy jaay reportage ca marché Castor Khadijatou Fall ak Ousmane Diallo. njaayum jën ci seddaay bile nekk lu métti loolu ci jaaykat yi nekk ca marché Castor Mariam Tamba moom moo ngi def kéemtulaay kàttanam jënam yi lamb la lool ci ay loxoom. jën bi moom amul moo ngelaw. mais bu géej gi ndax ngelawul yàlla mën naa andi xiiwal mais ba andi xiiwal géej nit nit ñi jaayu ñu ko amul sens. soxna sii moom jàpp na ni. kenn du njig njàkk ku dul waa Auchan. comme Auchan bi léegi xëyatuñu wàccatuñu ko doon añ léegi añatoo reer ba reer ngay togg ndax amoo loo jaay loo andi danga koy galaas lii lépp galaas la. soxna sii moom meex na lool bay futu ñi nga xamante ne ñooy waa Auchan. Ah, sedd bi moom ku xam na ne na torop te yeewu suba bi tamit ku ne xam na ne jàmbaar dëgg moo koy def waaye dóor waar ak daan doole rek moo tax heure fajar fu mu jotee moom day mel ni dañ ñuy yee ñu teg leen nag ba mu baax teg la yére yu bari ñëw rek xëyral dóor njaayum jën ci seddaay bi bile nekkul lu yomb loolu ci jaaykat yi nekk ci marché Castor wante gàcce ngaalaama ñeel na leen. loole moo jeexal pàcc bu njëkk bi ci xibaar yi ñaareelu pàcc lañ jëm wàllu bitim réew lay doon. ca république démocratique bu Congo beneen mbir bu bees ci procès bu Kananga benn colonel bu nekk ci armée bu réewum Congo la ñu daal di teg loxo ni kaltenag ji gannaaw ba ñu ko joxoñee baaraamu tuuma ne dafa jox ngànnaay groupe yi nga xam ne ñoo faat ñaari experts yu ONU woon mu di Michael Sarp ak Zaida Catalan ñoom ñaari enquête kat yooyee gannaaw ba ñu leen faatee ñañu njort test ni ñoo ko def mu di ay miliciens yu Kamuna Nsapu waaye ginnaaw enquête boo xam ne suñu naataangoo yu rajo France Internationale ak agence de presse amal nañu ko boobu léegi benn bànqaas boo xam ne ñu nekk ca nguur ga dañu ciy doxal ci lu dëppawul ak enquête ba ñuy amal ci limub ñooñu ñu joxoñ baaraamu tuuma sax mu bokk ci kolonel bii di Jean de Dieu ni ca Kenya ñetti doomu Chine lañu dal di joxoñ baaraamu tuuma ne dañu doon jema amal ab guerre ci benn bu fay amal ñoom ñetti ñooñee ñu ngi liggéey ci société bi fekk baax ca réewum Chine te mu tudd CRBC te nga xam ne sax moo tabax teg ci jamono it di saytu lii di chemin d'affaires bi dox diggante Nairobi ak Mombasa ginnaaw ba ñu leen tegee loxo niki démb ci altine ji bureau bi yore wàllum saytu ak topp ñel ci jëf yi nga xam ne wàllum crime lañu ko jàppee la gis moo di kon ñooñee dañu doon jema dugal ay mbiru ci bokkul bu ko defee rek kon wàllum enquête gi nga xam ne dañu koy amal te ñoom seeni tur bokku ci ñu mën cee dugal ay lënt lënt njiital réew bu France di Emmanuel Macron xamle ci talaata ji ne kon ay waxtaan yaa dinañu ko amal ñeel wàllum transition écologique ak sociale bi nga xam ne mooy tax fileek ñetti weer ci kanam ñu daal di mën a saafara mer gi nga xam ne gilet jaune yi moom la ñu àndal teg ci itam mën a teg ay pexe yoo xam ne dina ko mën a gunge moom Emmanuel Macron mi noppi indi ay coppite waaye dafa am fu muy tënku xamle na ne kon waxtaan yooyee dinañu ko daal di amal ci mbooleem territoire bi ba ci seen i associé association élu ak it ñi nga xam ne ñoo teewal ñii di gilets jaunes yi. xibaar yi dañu koy jeexaleek li ci yéenekaay ñu ànd ceek Daouda Kane mangook ñu doore kook politique ak site bi di yëgle point a ginnaaw livre yi fi jotoon a jaar Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany président Macky Sall daal di nay génne bosam ba noppi dippee ko Sénégal au ci biir livre bi Macky Sall ma ngi tee xamal lépp loo xamante ni mooy cofeelam gi mu am ci biir Sénégal rawatina mu wax ci njabootam Macky Sall wax ci xew-xew yi nga xamante ni jot na fee jaar ma ne ci livre bi Macky la lam ci gën a leeral bokk na ci bëggeel gi mu bëgg tey ji waa Sénégal rawatina nag ni nan la Sénégal wala mel suba Macky Sall yemu ca nee na daal Afrique ak Sénégal boo leen bëggee dégg dëgg daal lépp li mbëggeel fësal naa ko ci livre bii duy desandi ba tey ci mbirum politique ak site bii di Walf Net investiture di Niang daal dinay leer naa ñi Madické fëgg dënam jàpp ab date keneen ka jàpp date sa date la waaye du date Madické Niang 8 décembre dina leer naa ñi foofu nga xamante ni moom moo di ca stade Alassane Djigo bu nekk te di Pikine Madické Niang ma ngi fay woo képp koo xamante ni partisan nga wala nga bëgg ko rawatina ñi nga xamante ni mooy mouvement de soutien nga xamante ni Madické Niang wax na ko nee na daal ni dina yëngal élection présidentielle 2019 waa tamit leneen la ñu nemmeeku mooy mi ngay wéyandi di am ay soutien élection présidentielle 2019 yi nar naa tàng bu ñu ci site bi di Dakar Actu Mame Niang ministre du tourisme et responsable de l'alliance pour la république APR xam le ni mbirum yu opposition yi luñ ci namm mooy langaalamu ci daal di saboter élection yi waaye ñoom it duñ leen ci bàyyee ndaxte loi bi nga xamante ni moo xool ki ko war a jël jox na ko ñam ko war jox ñoo am privilège daal di xool lii di fichier yi ak saytu ko waaye tamit daal di ne addu ci ñëw Karim Wade ci réewum Sénégal nee na Karim Wade teewul na loo bu ko neexee mu ko naqari yëpp bu duggee ci Sénégal dina fay lu mu leen yoreel mambay ñaar daal yamu ca nee na daal ni Karim Wade bu bëggee dégg dëgg daal na ko leer ni daal tànkam fii bu ko fayul ñu yóbbu ko rëbës ubbil ma yéenekaay bi di réew mi point com ñu daal di ciy gis nataalu Aïda Mbacke mu jëloon jëkkëram daal di koy rey ba noppi dëggal ni moo ko rey na mu ko rey ak li tax mu rey ko yëpp daal di na koy leeral Aïda Mbacke daal di nee na daal am n sama copine boo xamante ni moo ma fekk ba fa ma toog daal di na ma Aïda xam nga ni sa jëkkër ji di Xaalim Njaay ni dafa takk ab jabar jabar ab italien la moom la lay nëbbu Aïda a nee na daal bi ma bàyyee ba sama borom kër tëdd di nalaw laa ko xëpp ab essence daal di koy taal taal gamu ko taal ba tey moo tax maa ngay réccu réccu gi nag day fekk jëf wees ba tax ni nag Aïda Mbacke fas ne nañ ko jébbal yoon fii ak semaine prochaine ubbi leen xëtu Walf net ñu ci xoolee gis ci ab nataal daal di takk seeni i brassard rouge di gënal fësal seen i maire waa alliance des syndicats otonom de la santé ginnaaw kàddu yi nga xamante ni Abdoulaye Diouf Sarr yëkkati woon na ko moom ministre de la santé daal di nekkat ñii di syndicats yi bu ñu dakkalul seen grève yi dinañ dagg si sa salaire loolu dafa mel ne ay wax wi nàq saay la ndaxte wax jooju boo koy wax da nga koy wax ku lay dégg waaye ñi nga xamante ni mooy waa ASAS daal dinañ wàcc ci mbedd bi yëngal ba mu neex leen daal di fësal seen quinzième plan d'action ngir fësal ba tey seen grève général bi nga xamante ni nar nañ ko amal muy 72 heures ànd gësëm day xam leen ni waan ni dinañ boycotté lépp loo xamante ni ay mbir la yu ngeen woo ci ñu waxtaanee du ñu fa nangu te du ñu ko def la nga xamante ni bëgg ñun def ko mooy ñu fajal leen seen jàngoro beneen jàngoro bi nga xamante ni ci Espagne la xewee sénégalaise bi nga xamante ni jëkkëram daf kaa rey ci kanamu ñaari doomam moom jëkkër ja mujj nañu ko jàpp na affaire yi amee fa mu amee lépp tax na ni police yu Espagne daal dinañ koy teg loxo ci ginnaaw soxnam soosu daal kenn ki jigéen ki am na li nga xamante ni mooy fukki at ku góor ki am juróom-benn at di kàddu yi nag ki nga xamante ni moo di ab dëkkandoom mbokk yi bu ngeen tijjee nopp yi jox ma bët yi ma wax la nga xamante ni xew na ca assemblée nationale ay député yu ñu gis ñuy dóorante bu ñu xoolee ba ci biir lan moo ko indi mooy temps yi leen jox pour ñu wax mool doylu jaajëfal ko bu baax moom Daouda Kane ci li yëglekaay yi xëyee woon tey loolee sax mbokk yi moo jeexal xibaar yi ci yëgle TV jaajëfal len bu baax yéen itam ci teewlu bi jaajëfal bu baax équipe technique bi nekkoon ci liguey bi caméra bi Babacar mboup jaajëfal bu baax itam équipe rédactionnelle bi Abdoulaye Timéra chef d'édition réalisation Khady Badji maa ngi len di jaajëfal bu baax mbokk yi di len jox dig dajé euleuk fileeg bu ma len di ñaanal programme Yegle TV jërë ngeen jëf ci bi